barke Cheikh Ahmadou Bamba ngi nuyu bu baax mboolem ko fi teew tey ziar ak a suñu xarit suñu rakk suñu wëllëre sëriñ jàpp mbay xasaayit mi di di ñaanal bu baax sëñ jàpp ci bis bii li nga ci bëgg lépp yàlla na ko suñu borom defal ci barke Bamba Rasul noo ngi nuyu bu baax mboolem waa kër gi di jiital ci nuyoo bi alxaaji Xaadim Mbay ak sëñ ak mi di seen mag di seen rakk noonu la ñuy nuyoo mboolem ñi ci bokk ci kër gi ñëpp ñëpp suñu wëlër lañ am sëñ Fallou sëñ Baara sëñ Abo ak mbooleem waa kër gi yëpp rek di ziar bu baax sëñ Abdoulahat Diouf di suñu kilifa yàgg koo sopp lool ci xasida yi muy suñu roy ci lu bari tamit danga koy ñaanal bu baax te gën a fas suñu kóllëre ak moom defe naa ñi ma xam xam nañ ne man dama koy bëgg maa ngi lay ñaanal bu baax yàlla doon la kàttan ak wér ak sutura ba li nga yéenee liggéeyal Serigne Touba ba defal la ba nga def la foo ko sa njort loolu la ñuy ziare mboolem jàngoo xasaayit boo xam ne teew nga ci baas bi ak ñi teewoon te dem noo ngi nuyu bu baax ah, Serigne Cheikh Ka kennal Serigne Touba di ko ñaanal bu baax sëñ Ndiab Serigne Cheikh Ka li nga ko defal rëy na lool ci moom te xam na ko tamit xam naa lii may wax sax mbirum sëñ Xaadim la xam na ko bu baax waxtaan na ci ak man lu ëpp weer ngir ñor bu ko bis bi ñor say su nekk muy wax ne mbaa yi na koy waaj te tey ci bëccëg sax dafa bëggoon a ànd ak ñun yendu si may nekk ci ay xat-xat waa wax naa la ko looloo ko teree woon a ñëw tamit nga xam li ko bu baax nga ko ko kon mom xam nga bu baax na bis bi ñor na ko te mu ànd ak ñi nga xam ne ñoom la àndal ñëw ëppoon nañu nii sax wala bu ko gënoon yaatal dina ëpp mu ak Cheikh Abdou Mbacke Moustapha Mbacke Ahad di sëriñam di rakkam di xaritam ànd tamit ak sëriñ Abdoul Ahad Mbacke moom sëriñ Cheikh Kumba ànd ak sëriñ Xaadim Gueye Xasida ànd ak sëriñ Xaadim Thion ak sëriñ Basirou Silla Baye Fall ak sëriñ Cheikh Ndiaye Kamal ànd ak sëriñ Irim Diouf ak soxna Bali Ndiaye ànd ak sëriñ Adama Gueye ànd ak sëriñ Xaadim Mbuub Yewel Yewelu Xaadimu Rasuul ànd ak sëriñ Abdoul Ahad Jaxate ànd na tamit ak Serigne moodu Thiam le boss ànd na tamit ak Serigne Alhaaji Ka ànd na tamit ak Serigne Djili Ka moom Serigne Moussa Ka werakaanu Xaadimu Rasuul ànd na tamit ak Serigne Cheikh Lo sëriñ Serigne Cheikh Lo Gossas ànd na tamit ak Serigne Mouhamadou Ndaw ak Serigne Lamp Silla ak Serigne Cheikh Fall ak Serigne Mam Mor Gueye ànd na tamit ak Serigne Ibrahima Thiam ak Serigne Fadilou Ka ànd na tamit ak Baye Axma Gueye ibnu Serigne Khadim tamit ak Serigne Serigne Fall Gueye borom maxtuma mi kon ñooñu la ñooñu la Serigne Cheikh Ka àndal ñëw mu amaana sax waroon naa ëpp nii waaye dafa xam ne coono yi bari na ak xat-xat yi ba tax mu tënk ko nii rek ñun ñii jot teew mu ne nañ leen dem waaye mi ngi lay xamal ne la bis bi lu ko ñor la te li nga ko defal itam rëy na xam na ne sa diggante moom démb la woon du tey waaye yàqoo ci dara bis bu nekk yaa ngi ñëw këram di ko nemmeeku looy dugg wax ko mu wax la ci liy xalaatam nga jëfe kon nee na mu la ci sant bu baax di gën a feddali seen colère bu baax li ci des sëñ Xaadim mbubb dina ko àggale jërë ngeen jëf lépp lu ngeen def comme jëm si wàllu audiovisuel contacte leen Khadim Ndiaye borom Ndiaye pro mi ngi si route de Belel jàkkaarloog boulangerie Gaynde Fatma woote leen gaaw si 77 325 68 20 77 325 68 20 boo bëggee liggéey bu xarañ liggéey bu tegu si temps am tali bi gaaw efficace contactel Khadim Ndiaye da ngay am la nga bëgg si liggéey bu set wecc